mawlaana muhammadin barke borom tuuba laa tatabira bi ma laysat bi xaadiratin wala tuxaayib rajaa fika yàllaaw laa tatabira bi ma laysat bi xaadiratin wala tuxaayib rajaa fika yàllaaw wasina ما من ماء كوثر من اقترته من جميع الخلق الله من كان يرشد ذا خير ويملك ذا كبر ويزر من يخشاك يا الله محمد المسكي أخيار خالدنا لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خافه اليوم الدين الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خافه اليوم الدين الله salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu mel ni nag tey jii ñi ngi fii ci fi nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy xel Xelkom fekk si fi sëñ Cheikhouna wax dëgg yàlla ak mbokk taalibe yi fi nekk yëpp ñuy waajal safar gi nga xamante ni at mu jot ñu fas yéene ko taxawee waaye ren ji dafa mel ni daanara nar a gën a dayoo waaye ni ñuy def rek mooy dañuy daal di jokkalante ak ñoom ñaar ba ñetti kàddu rek laaj leen wàccaayu bés bi ak naka la ñu waajee bés bi ak ñan la ñuy xaar ci bés bi suba incha allahu rabbi taala. waaw asalaamaaleykum mbokki jullit di mbokk maa ngi leen di yëgal bis bu màgg nag ñu koy amal fii ci complexe Xelcom yàlla dogal suñu jëwriñ ji di sëñ Cheikh naa Seck di ko taxaw fii ci complexe Xelcom Abdoulaye Diop Bichri nag di def waxtaan la hmm. ñu ci woo nag bépp jànkatu xasaay bàyyiwul kenn ñu ci woo jëpp bépp jànkatu xasaay di ci woo suñu mbokk taalibe yépp ak mbokki murit yépp suba nag bis bu bis bu màgg la ci ñun waaw ñu ngi sàkku daal teewaayu murid yëpp jërë euh, mu mel ni fi ne comme ni nga ko ni nga ko waxee léegi rek gannaaw ñu ngi waaj bés bi sa suba la daanaka ñu ngi ci cappaandaw li euh, daanaka naka naka la bés bi nar a taxawee ban waxtu lañ ko fas yéene tàmbale ak lan ak fas yéene nar def ci bés bi suba incha allahu rabbi. waaw incha allahu rabbi suba bés bi dana teel a tàmbali lool. Mm-hmm. ndax amal nañ fi ay wàcce kaamil bu mu xëyee huit ci suba. Mm-hmm. danañ fi jàng juróom-ñaari kaamil. macha allah def ko addee Cheikhul Khadim. macha allah am na ay añ. Mhm. am na ay njogonal am na ay reer. Mhm. waaw gannaaw tàkkusaan bi nag ci la njàngoom xasaayit bi di tàmbale. Mhm. jëm guddi. incha allah waaw noonu la bis mi dara tëddee incha allah rabbi mu mel ni biñ ko buñ ko xoolee ba set bàyyi ko bàyyi ko xel bu baax a baax keroog bi safara si teroo ba tey ca benn fan ba ba nekk ni ñu ngi gis bëccëg gu jot daanaka yéen a ngi xelli kafe yeeg yu yi muy àndal yëpp di ko joxe ci mbedd mi fi lu sabab loolu itam. waaw ndax moom moo waral lépp mhm. yàlla dogal na ba safar gi ba léegi amul amul benn bis bu buñ ko jëlal mhm. dinañ segg kafe dinañ tàngal meew mhm. ak yeneen ak yeneen yu ciy dem yëpp di ko jox taalibe Sëñ Tuubaa yi waaw lépp rek Sëñ Tuubaa la kuy ci ànd ak Sëñ Cheikh Naar Seck nii di suñu jëwin moom nga xam ne moo jiital lépp moom lépp moom macha allah sëñ Cheikhouna yow moom xam naa ni fi mu ne kaddu yi moom dana néew du du doo doo bëgg mu bari waaye mënta ñàkk fi mu toll nii wax nga wax ñaari kaddu rek jaam yàlla yi dégg la ndax wax dëgg yàlla bari ngay soppee bari ngay am di jàmm bari ngay wëllëre yoo xam ne daanaka dañu laa jàpp te sëñ Tuubaa rek tax yan kàddu ngay sooñ nga nga nga ci nga ciy soññ rek ci ci mu jëm ci bés bi. waaw donc waaw di jiital ci nuyoo bi. Mhm. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. xarit na fi yàgg loolu te wér ba. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu. amiin yaa rabbal aalamiin. ñu ngi ñaan ci barkeeb Serigne Touba. Mhm. di ko ñaan ci kàttu Serigne Touba. Mhm. waaw kéem taanu gudd fan. kéem taanu gudd fan mi nga xamante ne bii suñu borom moo ko yore. yàlla na ko wane si Mountakha. koy ñaan ci barkeeb Serigne Touba. amiin yaa rabbal aalamiin bi nag ko waral mooy adduna bi yëpp koy def. te ñaareel ba mooy sàkkuñ ci dara loolu ngërëmal seen Tuubaa mhm. loolu dong moo ciy teel ndax bañ koy tàmbali mhm. ci sase café bu ñaar fukk juróom lañ ko tàmbali woon ak suukar fanweer bu suñ borom dimbali ñu nag ñu dem ba at mu nekk lañ cay def sax maanaam yéemuñu ndax suñ Tuubaa dara yéemu mhm. te dara jómb ko waaw ñi ciy sàkku teewaay ñëpp bu ñu xëyee comme ni suñu xaar yi waxee rek danañ ko amal njàngum alxuraan moo xamante ni danañ ko ànd ak donga yi def ay berne yoo xam ne mooy li jëm ci ndékki ak aji ñu demee ba ngoon rek ñu am ñu ñëpp sant Sëriñ Tuubaa jàngkat xasi day ñëw Sëriñ Abdoulaye Diop Bichri mm-hmm. moo koy waxtaane ak Sëriñ mm-hmm. Amidou Diop bu Touba TV ñoom ñëpp danañ fi teew mm-hmm. ñu waxtaane Sëriñ Tuubaa waaw bu wér nag waaw sant wér loolu dong nañ jublu te di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mooy ngërëm luñ ci am. Mhm. yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa. sax. waaw mu mel ni kon sëñ naa gannaaw bi nga jotalee kàddu yi moom rafet na lool sell na itam macha allah rabbi euh, sëñ Modou. salaamaaleykum ñu ngi nuyu gars yi baax na. monsieur mhm. mbokk mi ñëpp. di ñaan monsieur Momadou Ndaxa mu loolu am na. amiin yaa rabbal aalamiin di ñaanal Cheikh Moussa Mbacke moom suñu sang bi mu yàgg fi loolu. amiin te man bis bi mbokk yëpp lañ ciy woo. Mhm. mbokk yi man yëpp mbokk ci lu yëpp dañ ciy sàkku seen teewaay. Mhm. ndax lépp sëriñ bee tax ñu koy def. Mhm. te di ci ñaan fay bu sëriñ bi te bu ñëwee ñu yàlla ñu ko bokk ñëpp. amiin yaa rabbi laa. di ñaanal ñëpp jàmm bàkki bi sëriñ Tuubaa. amiin yaa rabbi daal bis baa ngi noonu gaa yëpp ñu ngi ci woo. incha allah. muntaxaa nii nga mel la seex basiiru meloon kon gàcce nga laama ndax yokkaan nga lii fi newoon seex muntaxaa nii nga mel la seex basiiru meloon kon gàcce nga laama ndax yokkaan nga lii fi newoon seex muntaxaa diine lay doxal ju mat sëkk xaadimay maamam diine lislaam tuubaa la dëkk seex muntaxaa diina lay doxal ju mat sëkk xaadimay maamam diine lislaam ji fee la dëkk Cheikh Muntaxa yàlla yàlla na fi yàgg lool te ku ne amiin yàlla na ci mbokk Cheikh Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér ngeen jëf mu mel ni kon mbokk taalibe yi ni ñu ko gisee noonu rek noonu rek daal daal demee kon nag waa Ndakaaru kon nañu waaj te xam ni ndéem gan ñaa ngay fas yéene jóge Touba jëm si ndakaaru kon waa ndakaaru kon kenn war sa des ginnaaw rawatina parcelle ak golf gi nga xam ne fi lañ nekk kon ndigal laa ngoog jëf jaa ngoog jëf nag moom la sa ñëpp laa waxoon rek fa ñëpp yi jëfe ku fa jëfewul yaa fa perte kon nag jëf ji jot na waxtu wi jot na ay ca leen kon ñu daal di jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikh Mountakha diina lay doxal ju mat sëkk xaadimay diina la